يونس بي صلى الله عليه وآله وسلم وحجي صحيح المسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس إسناني ما نام خلافه دو دنج موك ما نام برمي هذا الأمر ماي برمي du deñ mukk ci loxo yi Xuraysh même bu fekkoon ni sax ñaari nit noo des ci kaw suuf maanaam bu desoon ñaari nit kese ci kaw suuf kenn ki Xuraysh lay doon te moom mooy nekk boroom jamono loolu la yonent bëgg wax foofu hadis bii nag ni mu génnee ne ci muslim boo demee ci téere chia yi génn na ci anam yu bare bare bare ci wàllu imaama par exemple am na hadis bu imaam jaafar sadiq alayhi salaam bu nekk ci alkaafi bu muy wax naan bu fekkoon ni ñaari nit kese ñoo des ci kaw suuf kenn ki mooy nekk imaamu ko ca des léegi imaamu boobu nag yàlla daf ko def ci njabootu yonent yàlla ibrahima bi nga xamee ni yàlla def na ko imaam bi mu ko waxee wa isib tala ibrahima rabbuhu bi kalimaatin fa atammahunna qaalu inni jaa'iluka linnaasi imaaman qaala wa min zurriyati qaala laa yanaalu ahdi zalimin bi nga xamee ni yàlla wax na ibrahima ni gannaaw bi mu ko nattoo ak ay baat mu mëtal ko yàlla ni ko def naa la nga nekk imaamu nit ñi après ibrahima ni ko ak ci samay ñenn ci samay njaboot ci samay njureel yàlla ni ko sama ko sama fasante bii de du ma ko fasante ak koo xam ni zalimin la maanaam day mës na def ab ab jéng aaya boobu day wane ni que yonent yàlla ibrahima alay salaam moom ci njabootam la yàlla def imaama boobu imaama boobu mooy xalifa bi rek benn la mooy xalifatullaahi fil ardi mooy amru bi mooy ulul amr bi nga xam ne moom la yàlla di wax loolu yépp benn réalité bi la yàlla nag yàlla dafa def loolu mu nekk ci xurayshi ni yooyu nga xam ni ay sëtu ibrahima lañu ci branche bu bani Hachim ci Xuraysh te ñoom ñooñu le nga xam ni ñooy ñëw gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fukk lañu ak ñaar yonent bi nee na fukk lañu ak ñaar ñoom ñëpp ci Xuraysh lañ bokk hadis boobu boo ko tëkkalee ak bii day da koy gën a leeral ndax yonent bi nee nag kulluhum min Xuraysh kon dafay wane ni ko imaam yooyu wala ulil amru yooyu ci Xuraysh rek lay mën a doon li ko waral mooy secret boobu mooy que xuraychin ki nga xam ne maamu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam kii njëkk woowee xuraysh boo tàmbalee ci moom ñëw ba ci yonent bi fukk ak ñaar la jox ay nit fukk ak ñaari maam la boo jógee ci yonent bi nag wàcc jëm si suuf ñi nga xam ne ñooy wutaakoonu yonent bi tamit fukk lañu ak ñaar dafa nekk benn balance balance boobu nag moo tax yonent bi ni ñoom ñëpp ci xuraysh lañ bokk yeneen bi tax ñu nekk ci xureesh mooy que si bani aashim lañu bokk te bani aashim ci xureesh la bokk li tax muy nekk ci bani aashim mooy que ay sëtub yonent bi lañu sallallahu alayhi wa sallam ñooy ahlu beyti rasul maanaam zurriyatu nabi lañu ñu ngi soqeekoo ci aliyun ak fatima dañu yor wilayatul fatimiya bi nga xam ni bidaati rasul moom mooy ki nga xam ni mooy meññ ñi nga xam ni dañuy gàddu réalité yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu tax yonent bi ni fatimatu badatun minni badaatun minni boobu signifiewul rek sama Dom la ñëpp xam nañu domam la mais badaatun minni maanaam réalité yonent bi en tant que leer fatimata boobu moom mooy ki nga xam ni moom mooy meññ ñi nga xam ni dañuy don réalité boobu loolu moo tax mu nekk badaatun min rasul léegi nag ñooñu nga xam ni ñoom ñoo koy gàddu ñoom si banu asim la ñuy nekk ci sëtu yenente la ñuy nekk donc mën te génn ci Xuraysh ndax toujours ci ñoom rek lay nekk ku fi jóge keneen topp ci ku si jóge keneen ba ci imaamul mahdi bi nga xam ni moo mujj ci ñoom mooy fukkeel bi ak ñaar te même gannaaw bu fi imaam Mahdi jógee day continuer ci njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi ma ñëw ci addis bi nga xam ni ci laa teg sama loxo te mbokk bi yónnee ko fuy yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama di wax ni ginnaawam xilaafa bi dina kon dina dem ci fanweeri at ci la yem après nag ci la mbirum buur yi soog a ñëw boo xoolee hadis bi waxu yonent bi rek ci hadis bi mu ngi yem ci donc d'abord hadis bi ci boppam sax buy fanweeru at yooyu am hadis bi solo nañ ko ci téere àllu sunna yi mais chi ay tamit am nañu hadis boobu waaye différence yi mooy interprétation bi nga xam ni moo nekk ci hadis bi mbokk mi génne ndax waxu yonent bi dafa yem rek ci baa anbaul ghaib maanaam dafa xamal nit ñi luy xew ëllëg dafa mel ne comme bu yonent bi waxee ni jamono dina ñëw ci akhiru zaman góor jigéen dana bare wala nangami nangam dina bare loolu firiwul ni yonent bi dafa digle lolu mais dafay xamal nit ni li nga xam ni mooy ñëw ñu xam ko kon ci hadis bi yonent bi dafa wax ni fanweeri at la xilaafa gi di am après gannaaw ga mu buur yi doog ñëw xam nga loolu bu fekkee ni xilaafa dafa arrêté buur ñëw échec am na foofu loolu moom lu leer la ndax da eh, yàlla daf ko wàccee woon pour mun yilif aduna yilif doomu aadama yi ba àdduna bi tukki waaye yàlla wàcceewu ko pour que mu am quatre vingt ans kese fanweeri at kese après daal di arrêté kon day wane ni que après trente ans day am benn échec boo xam ni rupture dafay am ñu daal di dugg ci beneen mbir boo xam ni ak dundu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon fii hadis bi boo gisee dafa wax ni yonent bi nee na dana am trente ans yoo xam day ni am khilafa après nag buur yi soog a ñëw léegi nag ki nga xam ne doon bi moom moo indi commentaire boppam daa di wax léegi ni Abu Bakar la Omar Ousmane ak Ali kooku yonent bi waxu ko waaye ki nga xam ni mooy commenté hadis bi moom moo wax loolu léegi différence bi ci ahlu sunna yi ak chia yi fii mooy que ahlu sunna yi waxu yonent bi dañ koy jël comme ni ñu jëlee alquran bu fekkee wér na waxu imaam yi dañ koy jël comme ni ñu jëlee alquran bu fekkee ni wér na waxu sayyidatuna fatimatu zahra dañ koy jël comme waxu imaam yi comme waxu yonent bi comme waxu yàlla bu fekkee ni wér na waaye waxu saxaaba pour ay yi ak waxu yeneen boroom xam-xam yeneen nit ñi ñoo yem te ci loolu ñoom tamit dañoo dëppoo nañu ak saxaaba yi seen bopp parce que saxaaba yi seen bopp tamit dañu jàppoon ni waxu saxaaba comme waxu jullit la rek bu ñu topp ni boo ci d'accord nga topp boo ci d'accordul doo ko topp kon dafay ñuru comme dañ koy kamu comme waxu n'importe quel musulman même ci jamono saxaaba yi noonu lañ doon doxee képp ku jàng seen siira seen histoire loolu dafay leer ni bëccëg mais nag par contre nag ahlu sunna yi ñoom dañu jàpp ni waxu sahaba dafa mel comme waxu yonent tamit différence la kon fi saxaaba bobu wala kiko ko jottali moom indi commentaire bopam wax abu bakar omar osman ali bu fekkoon ni yonent bi dafa wax loolu abu bakar omar osman ali kon ben werante du am ci wàllu xilaafa lu saqifa am ba gaay yi di fa dóorante lu bi omar bi ñu ko dóoree muy waaja faatu ba aïcha yónnee ci moom ni ko nax leen ko na na fal ku koy wuutu atruk mu ne ko buma ma falee kenn abubakar fal na bu ma falul it yonent bi falul woon kon loolu dafa wane ni ñoom jàppuñu woon ni yonent bi dafa di dafa digle kenn ci ñoom que dafay jël xilaafa ñetteel bi bi bi ah, non dama jum fi fii waa ñetteel bi bi mu bi mu décidé pour euh, teg fii euh, nu mu tudd benn euh, comité de six personnes pour que ñu tànn kenn ci ñoom ba pare daal di jox ay règles bu fekkoon yonent iya bi daf leen xamal ni après Omar Ousmane la kon jarul muy tëral comité day wax Ousmane rek kon lii yëpp dafay wane ni que ni ñu bëggee orienté hadis bi moom dafa taxawul àndul ak li xew loolu lu lu ñu war a xam la ensuite fanweeri at yooyu ñu wax nga xam ni mooy temps bi nga xam ne moom la xilaafa di def di durée bu ñu fàtte ni fanweeri at yooyu yemul rek ci Ali dañ ci boole six mois yi nga xam ne ci la imaamul xasan bi nga xam ni mooy xali xilaafa baayam di imaamu ali six mois yi mu nekk mooy mëtal mbir mi mu nekk fanweeri at mais boo dindee imaamul xasan du nekk fanweeri at day nekk dana manqué juróom benn weer juróom benn weer yooyu nag imaam xasan la donc xali xalifa fay juróom lay doon pour mu mët fanweeri at mais to du nekk ñeent kon il faut que ñu am euh, seetantal lii may wax ni ku ci nekk mën nga dem nga vérifier ko sa bopp nga xoolal ko sa bopp